père yaakaar nga Amadou Ba dina am chance élection yi ñuy dëgmal. Ah, man de li ma xaw jaaxal. Hmm. tu sais Amadou Ba moi je l'apprécie bien. Hmm. liñ ko def rek moo mën a xari hmm. yéex ko jóg jox euh, kii bi ak euh, am ci biir ñoo xam ne nii ci waa farandoom mayuñu ko jàmm moi quand j'entends une femme c'est ce que je peux dire mhm. mais dafa mel ni ring boo xam ne nii am na ku jekku moroom di ko dóor di ko dóor te amul benn yërmande ci moom mhm. ma xalaa Amadou Ba dafa yaru mhm. man j'ai l'habitude de dire que c'est pas un politicien li politicien yu tàmm du Amadou moo ko tàmm Amadou soxorul Amadou ko jullite la Amadou ku jub la xam nga benn affaire am na bi mu nekkee impôt domaine di ko jiite dàll yi muy sol dem jàpp pour ñëw julli waxtu yu jot moom la Sonko daan sol moom it dem jàpp ñëw. ñoom ñaar ah, ñu nekkoon ñoom ñëpp. Sonko nekk fa syndicaliste moo ko créé. Mhm. Diomaye fu la nekkoon nekk secrétaire général bu syndicat ba. Mhm. donc rapprochement bi nga xam ne am na ci les trois la dafa xat pour ñu fi waxante yoo xam ne et puis politique jaru ko. day gañe doxal. Mhm. wala ñëlee lay gañe doxal. te bu ñu doxal génnu ci li ñuy doxal. parce que sénégalais la te fii la bokk ci réew mi. su doxee système bi ñëpp di jubal mooy gën bu ko defee lépp lu ñu xam ni ñoo ngi koy wut ci jàmm ak salaam euh, yàlla defal ñu ko réew mi naat loolu rek moo ci am importance réew mu naat lañu soxla waaw nga xam ni nii mag ak ndaw kenn ku ci dëkk ku nekk fii ci Sénégal di ci gis sa bopp absolument euh, leneen lu ñu daal di waxtaanee bokk na ci requête bi euh, PDS dugaloon ànd ceeg waa les candidats spoliés fële ci cour suprême euh, gis nga décision bu nu jël mooy déclaré irrecevable ci li nga xam ne nag mooy lu bëggoon di attaqué li nga xam ne nag mooy décret président Macky Sall jëloon di convoqué lii di corps électoral bi alors euh, tey jii est-ce que yaakaar nga li nga xam ne nag moom moo di. Euh, système mu euh, PDS dafa commencé am problème ndax gis nañ ne carrément Karim Meïssa Wade amoon na mille possibilités pour ñëw Sénégal battre li nga xam ne nag moo di campagne waaye aussi candidaturam jàll lu ko yàqal nag mooy birum double nationalité tey jii lan mooy doon euh, suite li nga xam ne nag moo di PDS ci ëttum politique bi. mais loolu amul suite amul suite dafa nekk ni Karim mënul toog fële. Mm-hmm. ñoom ñu koy doxal fii. daa waroon ñëw. ah exactly. Mm-hmm. inconvénient bi nga xam ni amat na ko mu di déggul wolof. Mm-hmm. naka la naroon def campagne buñ ko bàyyi woon mu jàll. te du loolu moo tax sax ñu joxe euh, verdict boobu euh, yéex a jóg moo leen dal. Mm-hmm. kooku jarul taal réew man dégg naa fi ñuy wax naan waaw. élection du amak kenn xam la loolu bu ñu yóbbu ci réew mi ci yooyu bu ñu yóbbu réew mi ci yooyu comme atte mm-hmm. seen atte ñoom ñu bëgg ko ñu bañ ko am na nu mu demee nañ mu ba jëmmi jan jamono mm-hmm. loolu la parce que bu ñu bàyyee seen xel ci ne sonko bi mu nekkee kaso ñoom ñoo ko tëj mm-hmm. ñoom ñoo ko tijji amul luñ ko deful ci biir kaso ak li mu daj yëpp nañ xool ci loolu gis ne ba wees na mbuus mm-hmm. ah ñu bàyyi noonu parce que amoon na fi ñoo ngi koy xool mm-hmm. Macky li ko gaañ mooy daa waroon na fay bor bi nga xam ni nii Ablaye Wade moo ko ko euh, lebal mm-hmm. donc loolu mooy inconvénient bi nga xam ne nii Macky moom la doon jéem a def te jéem na Euh, waaye comme euh, euh, cour suprême nii la ko àtte mhm. la mu jëm dafay dafay dindeeku parce que pexe yañ ci doon wut pour doxal ko mhm. moo woon yoon ñu àtte leen am nañ dëgg amuñu dëgg mhm. lii leen jox nañ ko respecté te bañ a taal réew mi. jaru ko ko exactement yaakaar nga ñoom dinañ toog nangu li nga xam ne nag mooy décision bi bañ euh, woote li nga xam ne nag moo di fit ndax ñoom seen biir kàddu euh, dégg na nuy wax naan ay buree taal pour na mën nañ ko waaye aussi élection du am tànk Karim bokkul yaakaar nga ñoom daanu euh, respecté décision bàyyi ko fële ci cour suprême. waa xam nga loolu moom du fa rëy. Mhm. maa ngi koy wax léegi nee la nee la bu ñu taal réew mi. Mhm. jaru ko jaru ko. élection la woon ñoom dundoo wut. Euh, ki leen xañ du nit yàlla ci boppam moo ne carrément ñoom du ñu mbokk mm-hmm. dañ ko wéer foofu def jàmm ak salaam te bañ di topp seen mer ba nga xam ne nii ni ma leen gisee waxee dënn mm-hmm. ah ñàngal fii élection du am nangam nangam ak yu kenn xamul yooyu ku nekk di jël kaa ak yooyu mais loolu buñ ko defee tey fii mu nekk nii dégg naa sax ñoo xam ne dañ ne ñun tàlluñu pëna Eh, kiiwuñu saagawuñu eh, ay yu bari lim nañ ko daal. mënatuma ci dellu si. parce que bon comme vidéo la après naa ko seetaan. pour mën a tekki bu baax a baax a baax li nga xam ne nii yëpp jot nañ ko wax. mais daal en grosso modo élection du fa am mooy gën a essentiel ci li ma jàpp. bu élection amul lan mooy am. vraiment. Hmm? moo ah kooku jaaxle amu ci loolu mooy. dañu histoire talpona comme lim nañ talpona. talpona fa fajul élection de. faju ko euh, taxul élection am. boo ko fi taalee dégg nga maam yow mi koy taal sax mu lakk la looy wax. Hmm? bu la lakkul indi tuuti doon na nit ñi xeeñtu xeetu pono bi. Hmm. feebar ceeg yooyu yëpp est-ce que circonstances yooyu yëpp at atte nañ ko. attan nañ ko. ba di ko def ñu xam ni nag buñ koy def population bi lañ koy def. defuñu ko ñi nga xam ne ñoom lañ moom la ñoom la ñu mere. wallahi jarul la nodd. ñu ngi woon ci li nga xam ne nag moom mooy euh, kàddu yu waa PDS doon yëkkati yaa ngi doon sensibiliser aussi di wax ni euh, carrément ay. ca taal ba nag indi li nga xam ne nag moo di fitna talu na ci loolu lenn mooy l'essentiel bi mooy dem ci li nga xam ne nag moo mooy élection présidentielle est-ce que ñoom tey yaakaaru nu PDS bu bokkul ci élection yi rek boo moytuwul parti day nërmeelu euh, loolu la ñu gën a foog moo tax euh, xas bi ñuy xas ñu wax ko élection di fi am ak euh, dinañ taxaw taxaw boo xam ne ni dinañ xam ni lii recours yi nga xam ne nii dugaloon nañ ko te d'accorduñ ci euh, dinañ ci d'accord euh, su ma nee la loolu dara jaru ko moo tax Decroix ne danañ waxtaan seen biir pour xam naka la ñuy doxalee ak quelle décision prendre nañ ko déglu te dox ni mu xalaatee. effectivement waaw moo gën ko